bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci lii nga xam ne moo nu fi dajale muy jooxe waxtu sunu boroom bokk yi nit ki lu mu tàmm mën na ko miin te bu ko miinee mën na ko yab te bu ko yabee jariñoo ko dana jafe lool wolof daf koy misaal ci ne xorom bu yabee ndox bu yàggee rek duutoo xàmmee xorom ak ndox ndox da koy wan yàlla nañu ci yàlla musal tomb bi mi ngi jëm ci fàttali benn ci farata yi nga xam ne amut noor amut nawet amut it weer sàngam daa jot xew sàngam am ca rek ñu di ko jooxe déedéet duunut loo xam ne dañ naan su ko nit ki defee benn yoon ci dundam wàcc na ko ni aj màkk wala at mu jot su génnee asaka jaanam wàcc na ba déwénaat wala ba ba muy amaat lu mu génne war asaka ca ya ñuy génne ci ab lim doonut ne it dañu koy taxawe guddi gi bàyyi bëccëg bi waaye mooy farata ji nga xam ne moom la ñuy taxaw juróomi yoon bis bu set moom la ñuy taxawe juróomi yoon bis bu set bés nag mooy bëccëg bi ak guddi gi muy farata farata boo ko déggee mooy loo xam ne luñ ko tudd rek mënu caa ñàkk tey ku fas yéene togg su limee yemi lim yépp ñu ne ko fàtte nga ndox mu ne du ca dara nar na leneen lu bokkut ak togg waaye ndox mënu caa ñàkk moom la boroom téere ba di wax ne fa waajibun laa yaqbalu nafya bi xaal luñ ne lii farata la ci mbir rek mënu caa ñàkk farata jooju nag ku dib jullit bi mu kàllaf amum xel gàllu na ci aw loosam moo xam muy boroom alal walla ku amul dara moo xam muy ku wér walla ku wéradi góor la walla jigéen la ma nga ca dëkk ba mu dëkk walla dafa tukki jàmm am na dara xew lu dul jàmm walla fitna am na yàlla ñu ci yàlla musal loolu lépp lu tax mu taxaw moom su ma ko gënee jegeel si daal mi ngi mel ne lekk ak naan bokk yi amul benn xew-xew bu rëy buy xew moo xam muy xew-xew jàmm moom rawatina ca waaye xew-xew boo xam ne bii bu metti la ba tax ñu ne bu kenn togg bu kenn lekk déedéet bokk yi ponk boobu mi ngi mel ne ci jullit lekk ak naan lu mën a xew du taxaw lu mën a xew du taxaw wala ayaazu billah sawara dana dugg ci ab dëkk wala ci ak kër ne ko fuuf ba dara desatu buñ ne mbaa kenn gaañuwu ci ñu ne alhamdulilah kenn gaañuwu ci nga dégg jigéen ne xaaral ma ñëw taali añ wala ma taali reer te moo ne la ko waral mooy sawara leen ko teg leen daal sawara leen ko teg waaye la muy junj rek mooy lekk ak naana mënut a taxaw lu mën a xew day day am buñ ne mukallaf la war nag kan mooy mukallaf am na ay nattukaay yoo xam ne ashariatul islaamiya moo ko tëral su nit ki gënee adduna ba yàgg aw yaram tàmbalee soppiku aw yaramam ci nii ak ca naa waaye ba ci gën a gàtt daal mooy képp koo xam ne élection yi di ñëw dana mën a wate ji kookee mooy mukallaf ku mën a wate rek mu tudd mukallaf su boobaa li waroon ndeyam ak baayam da koy daal di wata du ko wàcc mukk ba ba muy faatu cig wér ak cig wérati moom lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne moom julli julli rek mooy dalam xelam maanaam bu jullee sama rek am xelam dal te loolu ñu ciy góorgóorlu xam nañ ko kenn ku nekk xam na ne su nekkee ci yitte ba tëdd jot xelam mi ne yar ci julliwut gee bala moo am jàmm da ko def donte seetaan da cee laxasu nag léeg-léeg ni ko sëñ mag bi jàngalee ci téere bu ñuy wax masalikul jinaan ak yeneen téere ne nit ki su jógee bëgg a defe lu baax seytaan da ko naan xaaral tuuti xel ma te caa jóg mu ne ko gaawal def ko bokk xel ma te caa jóg ci def ko nam ko war a defe bu ko defee ba noppi mu ne ko gaawal wan ko nit ñi ndax ñu gis ko yal nañu ci yàlla musal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon ju'ilat qurratu ayni fi salaa daana wax léeg-léeg bilaal it qum yaa bilaalu fa arihna bi salaa waxtu wi jot na jógal woote noddu ñu julli ndax xel yi dal yàlla na nu ko yàlla jàppandalal muy ponk boo xam ne nag suñ ko doon misaal ci mbaar mii nga xam ne moonu tiim mooy kenoom yii bokk yi ab tabax nangu na lu nekk nangu ne ko ca daaj pont nangu ne ku ko xolli raaxaat ko nangu ne ku ko xolli taaxaat ko taax daax ko ŋànk ko nangu ne yooyu yëpp ba mu des nag dindi kenoom ya kenoom ya moom suy dañ ba cay mujj ñenn ci biir bay boo ñu seet fuñ jëm lu ko may mu daal ci seen kaw yàlla ñu ci yàlla musal moo tax waroom xam-xam yi juboo nañ ci ne ku bëgg a xool ak ruuxam ba xam mi ngi dund waaw wala déet la mu waxante woon ak sunu boroom te nit ñi seere ko ma ngay wér waaw wala déet mën na koo xam na xool digganteem rek ak waxtu yi suñu boroom yi su fekkee saa su jotee balaa am jàmm da koo jooxe ci lay dem ba tàmm ko ba tàmm ko ba nga xam ne day mujj neex ci moom lool moo tax mag dañoo ñëw ne ko diw day ak julleem kenn mënu caa ànd ndax day yàgg lool mu ne da ko bëgg a jox ak xam rek ñu ne ne ko keneen day moom julleem kenn mënu caa ànd ndax day rapp rapp rek ni ginaar di fore mu ne daa bañ seytaane jax jaxal ko xanaa kooku sikkalu sa sikkalu sa genn julli sikkalu sa genn nam koy defee daa yeex ba kenn mënut a ànd ak moom mu ne da ko bëgg a jox ak xam ku ko mën defee ko nam koy defee soo ko mënut ku ci nekk mën na ko defal boppam kii daa gaaw ba bala ngaa rukkoo mu siggi bala ngaa sujjóot mu siggi waat mu ne dañu bañ seytaan ak jax-jaxal ko waaye xam na ni warugar la ci moom donte nag jox ko xaqam jim jëkk wax moo ci gën moo tax di ca niig niigal ku ko tàmm ba tàmm ko na xool ab xolam ba xam xol ba ngay dund waaw wala déet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ci alquran ne yàlla ne ko na ngeen na nga xamal ñëpp ne julli day dox diggante nit ak defab safaan day defar nit day defar nit waaye ngi nii woon joo xam ne daa gis seen soxna xel ma ne ca lool guddeeg bëccëg ba mu wax ko ay waxam soxna sa àggee ko boroom këram ne ko diw daf may wax nangam boroom këram ba ne ko ay ca woo ko mu ñëw mu ne ko fexeel ba ñeent fukki fan yi ci suñ kanam bis bu set naa la gis jàkka yi waxtu naa la gis jàkka ji waxtu yëpp rek su su boobaa loo bëgg da nga ko def ba mu defee ñeent fukki fan ya ñu ne ko la nga waxoon mat na de mu ne xalaatatuma ko kooku jullee ko def am inna salaat tanha anil fahsha'i wal munkar moom nag mu am ay waxtu woo xam ne ku ko jiitu tuddegu ko fi mu ne nii lu waaye bëgg bëgg lu baax su ne woon day julli timis it di su ko jàpp julli timis jotagul waaye fi mu toll nii su ne nekkee ci ay yittey boppam it ba waxtu ñaari xaaj yi mu am muy bi ñu ci gën a taamu muy bopp ba weesu na cat la weesu ba beneen waxtu duggaat woo xam ne laa leen wutal bii dara mën naa fay waaye bokkut ak jooxe julli ga ca waxtam ba donte nag kooku jàmbaar la moom itam moo tax suñu borom ne inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquta waxtu la am woo xam ne bii nit ki daf ciy wéet ak suñu borom moom daal bokk ji bokk yi lu jàkka ji xumb xumb ak lu mu fees feeseku nit kaar kaar du tee kenn ku ci nekk lañ ko digal mu di ko wax yàlla la ko séqal mook yàlla mook yàlla daal su ko defee kon jataay bu nit di waajal ngi gise ji ak diw di ko waajal nam ko war a waajale lam cay wax ak nam cay soloo ak la muy lay buñ ko laajee lii ak laa suñu boroom rek moo ko yayoo moo ko gën a yayoo ndax kat du nax kenn waaye kenn mënu koo nax te lu waay def mu bindal la ko te ginnaaw dañoo jëm foo xam ne dara dara du fa doy nañ fexe ba yób yóbbante fa lu bari ndax kenn du fa yóbbaale lenn lu bari dañ ko fay fekk rek buñ ne ku mën a wate nag góor ak jigéen ñooy wate ci réew mi bokk yi julli kan lay toog di ko xaar mooy jigéen joo xam ne daa am ngànt wala kuy soog a am doom te jaar ko fi ko yàlla daan jaarale bi soog a am doom jaar ko fi ko yàlla daan jaarale ñooñu moom julli day taxaw nee na leen yéen bàyyi naa leen xaar ba ci kanam tuuti dem ci ñeneen ñi ci des waaye góor goo xam ne dana léegi dara jotu ko moom sëriñ bi wax naa ak moom ci ay téeréem am na téere bu ñuy wax aljawharun nafis mi ngi ci way al axdari am na ci fasl boo xam ne mu ngi ko tudde faslun dukira fihi salaatul marid min qiyaamin wa julusin wa xukmihima maanaam bunt bi ñaari bunt la téere boobu am am ñaar fukki fasl ak juróom benn waaye am na ci bopp lam cey jàngale mooy ku wéradi koo xam ne jàpp na ne moom fii ne julli wàcc na ko mu ne ah waroom xam-xam yi de nee nañ juróom-yaari anam yi ñu jullee mi ngi nii gannaaw wéradi dikkal na la ki nga xam ne dara jotu ko mën naa taxaw ak tànkam ne kenn mu taxaw kooka moom sañ bañ la su fekkee mën naa taxaw ak tànkam waaye bu wéeruwut mën naa daanu it may nañ ko mu wéeru muy ñaar su munta taxaw tem munta taxaw te wéeru it mën naa gàpparu bokk yi kuy gàpparu nag day yëkkati tànkam day joram su ko mënee tam bañ a bañ a mën a wéeru ci lal bi dugg naa ci ki nga xam ne daa wéré di ba ay bokkam amatuñ ci moom yaakaar ca néeg ba la ko lépp di fekk lu muy defit ca néeg ba la koy def kooku la suñ bi waxal nu muy jullee su ma nee gàpparu bañ a wéeru ci lal bi mu gàpparu bañ a wéeru ci lal bi muy ñett su ko muyut mu gàpparu te wéeru ci lal bi muy ñeent su ko muyut na tëddee ak wetam ndey joori si gën su ko mënee su ko muyut mu tëddee càmmooñ su ko muyut lu fa sës juróom benn yëf tudd naa ko ba ca des mooy jaaxaan ñu ne kuy tëdd ndeyjooram ak càmmooñam ni muy jullee mën a junj rek junj junj rukkoo yi bañ xam ne bëgg naa rukkoo bëgg naa sujjóot waaye mënatu ko loolu nag ka koy jéem mooy ka ko xool ba tàmm ba waxtu wi saa bu jotee fit wi ne tërét balaa am jàmm da ko def dëgg dëgg foofu nag ci suñu gis ku fa àgg moom ñun dañuy jàpp ne dañuy jàpp ne cim xel donte xel moom lislaam soxlawu ko agun ci atteem dañuy defe ne kii lépp wàcc na ko dépasse waratu ko waratu jënd ordonnance dañ ko war a jëndal waratu dem xew dañ ko caa war di demal waratu dem fii ak faa waaye ndekete yoo yàlla moom mi ngi taxaw rek ak ndigalam li fekk ku gaa ngi dem ak dikk soo ko wooyee mu wuyu la moom wàcc ko subhanahu wa taala moo tax kenn ci mag ñi dëkkoon ci dëkk bi demoon na ba xàmmeetut ay doomam ndax at yu bari xel mi xaw a di soppiku bu ne ko kooku kuma mu ne ko man la diw mu ne ko diw man mu ne ko sa doom mu ne ko man kay mosuma am doom ju tudd noonu te xamoon na waaye nag kenn daawu ko génneel dikk bi alxuraan bi mu war a jàng ci alxuraan waaye kenn daawu ko waxit waxtu wi jot na la ko ko may nag mooy daf koo tàmmoon ci ndaw ba màggataale ko xel ma cër ya tàmm ko saa bu ñëwee mi ngi mel ne montar boo def mu di la yee ñeenti waxtu saa bu agsee ci ñeenti waxtu moo xam ngay nelaw wala nelawoo waaye dana sone dana sone ba sonn def la mu war a def cër yi ñoo koy tàmm gannaaw bu ko xol bi fase yàlla ñu ko yàlla jàppandalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag wax na ne bi muy firi aaya boobu nga xam ne mooy loolu loolu nekk ci aayab utlu ma uxiya ilayka min alkitaab wa aqimi salaata inna salaata tanha an alfaxshaai wal munkar dafa wax ne yéen ñii kenn ku ne ci yéen bu fekkoonte ne ak dex daa romb biir buntu néegam muy tax bis bu sët mu génn sangu ci dex gi juróomi yoon ndax des na jàmbat ci moom ab tër ñu ne ah déedéet lu tax xanaa sang sangoo bi mun a jullee ngu noonu wax na ko ci njàpp wax na ko ci julli ara araaytum law anna nahran bi baabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin xamsa marratin hal yabqa min daranihi shay'un qaalu laa yabqa min daranihi shay'un ya rasul allah qaal fa dalika mislu salawaati alxams yamxu llahu bihinna alxataaya ay adunubu saxira saxi saxira moo tax lu mat a taxawe la loo xam ne nañ xam ne kenn defalu ko kenn nag ndax kat bokk yi gone gu mën a gut a lekk amaguti gëñ manis naa waajal yu nooy saxal ko waaye ca lay wajur mën a yam nag su dee koo xam ne mën naa yëy tuuti manis naa koo sàjjala sàjjal ba mu xaw a mokk waaye mokkali ko falu ko ba mu mokk mu wanaasu ko nag kenn ku nekk yaa ko mel na sa bopp su ko defee nag mu ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku faatu ku nekk moom la yàlla di jëkk a seet ci ay këyitam moom julli su fekkee kooku góorgóorlu na ca lam man yéeg des yépp yàlla mën na ko bañ a xool mën naa sukkandiku ci julleem gi jéggal ko lépp la ko waral mooy li tax ma ne du ñëw at mu jot mooy asaka du loo xam ne tam benn yoon lay war nit ki ci ci dundam it mooy aj mag waaye weeru ko rek daa am waxtu waaye yooyu yëpp ku koy def da koy boole du julli su fekkee di sa mu def ko juróom yoon te mënu ko nam ko war a mane nag yaa ca des yiy ñëw par at wala benn yoon la koy war ci dundam te mosu ko def ci dundam sax far ndax amutoon kattanam muy aji màkka waxaale wuñ ñooy yàlla nañu ci yàlla musal kon yàlla nañu ko yàlla déggloo te jàppalal nañu ko suñ Falilu Mbakke nag nit ñëw na ne ko fa nga ma tegoon de maa nga mu ne ko ca daara ja mu ne ko waaw waaw mu ne ko foo toll fi mu ne mu ne ko fànn yu bari kay moom teeg naa leen mu ne ko goo ca gën a jekku mu ne ko fànn gi ñuy wax fiq mu ne ko goo ca loo ca gën a jekku mu ne ko julli moom xam naa charte yi tax mu wér xam charte yi tax mu war xam ay farataam ak i sunnaam ak i fadailam ak i mandubaatam ak nañ koy waajale yi tax mu wér ca la bokk lu ci tàmbalee dang daay mën naa fexe ba ba defar mu ne ko jàmbaar nga de xam julli mën a julli nag nangoo jullee ko gën yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin